ay maqaam yàllaaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi buru yàlla dool dinoo ay maqaam yàllaaw salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna tey ñu ngi seet tey suñu benn kilifa gu mag goo xamante ni tey jii dañoo sàkk woon tey fekk ko fii mu nekk tey ñu fekk ko fi muy suñu xaadim mi nga xamante ni mooy faj faju ajo yi lu tax ma ne mooy faj faju aajo yi duma ci sori li tax duma ci sori mooy doon na jëmm joo xamante ni kenn dootu ko naatable ci mim réew mu doon na kilifa goo xamante ni te ci li muy yëngatu bari na mais ci loolu lépp damay bàyyi mu nuyoo ba après ma ñëw xus ak moom ci waxtaan bi euh, sëm bi daa mel ni moom mu ngi fomp alxuraan bi nga xamante ni mooy kaamil gi te xam naa ne nit moom yaakaar naa ni boo yëngatu ci dara alxuraan moom boo ko xasee ba fonk yaakaar naa ni kooku ñëpp a koy ñeme. kilifa gi maa ngi lay siyaar. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñu ngi nuyu kilifay aada yeeg kilifay diine yi di nuyu uh, suñu bunt ci sëriñ Touba sëriñ Mountakha Mbacké di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi te naal yi mu uh, commencé mu eggale ko ci sago te ñu ànd ko moom. di wax di képp koo xam ni yaa ngi dégg sama kàddu gi yàlla na la fekk ci jàmm. képp koo xam ne yaa ngi dégg sama kàddu gi yàlla na doon kàddu ngëneel kàddu tawféex ci yow euh, di wax comme ni ma koy waxee rek euh, ñuy ñaan ci yàlla rek képp ku am aajo ba yaakaar ñu ci mu bañ a tas xuli allahumma malikal mulki tuutil mulka man tasha si tansiul mulka mimman tasha wa tuissu man tasha wa tazulu man tasha bi yadika xayru innaka ala تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من ju وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب bisimilah ku baax kii. alhamdulilah yéen a déglu li nga xamante ni kilifa gi tamit tijjee na ko tey ci li may njëkk tuuti rek daanaka du ma sax sori mais jii bu ñu nee sëñ Xaadim ne ko ndomba bu ñu nee sëñ Xaadim ne borom jaaro ji su ñu nee Xaadim ñu ne dafa am ci loo xam ne dama bëggoon tuuti ñu ñëw ci moom wàlla ndomba gi lu waral ndomba. waaw xam nga bala ma wax si wàllu ndomb bi sax xam naa damay bëgg maanaam ñu wax ci wàllu seet ba pare. waaw kay juste rek parce que li tax ma njëkkee sax wàllu ndomba gi parce que te damaa tibb man dama fi dugg rek am loo xam ne dama jàkkaarloo ak moom ndomba gi kat damaa yaakaar ne kat su ma waxee kat mu tontu ma kat moo tax ma xaw tiit léegi ci wàllum seet comme ni nga ko waxee euh, sëñ bi wàllum seet mu ko def bari nañ waaye nag nee na tamit ñu ko mën. tey jii ban secret moo am tey jii ci set waaw ah, xam nga wàllum seet moom képp koo xam ne maanaam yaa ngi yëngatu ci wàllum ñaan te mënoo seet maanaam na nga xam ni mënoo ñaanal nit ki lu mu gis parce que seet dafa doon loo xam ne mooy buntu ñaan ni olof di waxee ni booy jëm cib dëkk faaw nga jaar ci yoon ngir egg ca dëkk ba loolu mooy waral maanaam seet parce que nit ki boo xoolee ay mbiram ba xool ni aw rawxaanam lii la bëgg muy saraxam wala suwaat nga xoolal ko xam ni lii moo gën ci moom wala nga xoolal ko xam ni lii gënul ci moom loolu yëpp feek seetoo mënoo koo xam nit ki da koy xoolal xam ni dañ ko liggéey wala nit ki da nga koy xoolal xam ni rab moo ko tere avancé wala nit ki nga xoolal ko xam ni maanaam ay jafe-jafe àdduna moo ko tere avancé loolu yëpp ci cadre liggéey la waaye lu mu ci doon bu ñu ciy jëflanteeg nit ki faaw dañ koy xool te bu ñu ko xoolee lépp loo nga xam ni suñu borom dogal na ñu gis ko ci loolu dinañ la ko leeral incha allahu taala te lépp loo xam ne war na ci bu ñu ko xoolee ci sa ay mbir ci kàttanu yàlla buñ ci amee ak kóolute maanaam ñu lijjanti la loolu fajal la ko muy aajo ju faju incha allahu taala. ok mais wàllum set. set tey am na ñoo xam ne tey dañuy seetee tey jii ci wàllum euh, leket. ñu dañuy seetee ci dàll ñu dañuy seetee ci wàllum petaaw ñu dañuy seetee ci wàllum listixaar tey jii nga yaakaar ne seet yooyu noonu ñëpp tamit di koy seetee tey ku ci nekk dafa am rawaan boo xam ne moom ngay seetee waaw xam nga seet ay façon la ndax seet dafa am maanaam euh, xaar am seet dafa am listixaar am seet bi nga xam ne nag mooy li gën a wér te ñëpp gën koo sopp mooy listixaar ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ko def. muy tëdd ba guddi maanaam nga xool mbir mbiri nit ki wax ko li na ci moom waaye loolu dafay mën a nekk bu timis xasee ba jot heure bu timis xasee ba jot ñaare man ngaa xool mbiri nit ki ndax boobu dafay fekk rawxaanam maanaam dootul dox maanaam rawxaanam day toog mooy waral lépp loo xool ci moom danga koy gis mais bu fekkee wàllum bëccëg la nga bëgg feetal nit ki fekk nit ki am ay yitteem di ko dox fekk rawxaanam am ay yitteem moom itam di ko dox ñaare mën nga koo gis waaye doo gis léppam moo tax feet daal li ci gën mooy maanaam du ma ni benn baaxul waaye yàlla suñ borom moom dafay rëbb duñ ko wax nag ngir soboote kenn waaye ak leeral la yàlla rëbb na koo xam ne euh, toog nga ci ku yor ay pettaaw boobu seet moom yàlla dëganalu ko ndox suwaat ndox meeg yooyu nag moom ak léget yeeg maanaam aada yi nit ki la rek waaye li gën a wér daal mooy li si xaar ñun lépp lu ñuy def ci alxuraanul karim la koy defee listixaar ci alxuraan lañ koy defee incha allah taala waaw yaa ngi wax léegi nga ne euh, maanaam seet ci petaaw euh, lu bëri ñu koy def waaye dafa araam parce que listixaar moom la defee li nga xamante ni mooy seet euh, te yaa ngi wax tamit ci biir wax tamit nga ne maanaam am na ñoo xamante ni maanaam pour ba leen di seetal maanaam timis bu xasee ba jot secret timis gi lan la. waaw secret timis bi mooy maanaam xam nga mbir mu nekk rek lu di def lu nekk rek. ñaare danga ko war a def ci ak mën waaw man day jiitu ba pare rek leneen li ci def yëpp bu ñëwee rek maanaam da ciy dolleeku xam nga maanaam nit ki li ngay fanaanoo maanaam doo ko wax nit ndax bu ne secret moom nga dem ba toog ci pénc di ko fa wax loolu nekkatul secret waaye daal loolu ñu wax képp koo xam ni suñ borom dogal na ngi jëflante ceeg ñun ci wàllu seet incha allahu taala bi nga nekkee xale ba fii nga toll doon mag incha allahu taala lépp lu la ci bëgg leeral bu neexee yàlla dinañ la ko ci leeral incha allahu rabbi. mais kilifa gi li nga wax yéen a da nga ne ba ba ni nga nekkee xale ba ni nga nekkee mag incha allahu rabbi bis boo toogee ak moom jëflante ak moom li nga xamante ne moom nga bëgg a dégg di nga ko ko wax moom la dégg. incha allahu taala ndax euh, li ko waral lépp rek xam-xam la. Sëriñ Sambay dafay wax ni heure nit bu nekk heure boo xëyee rek chaque jour war nga dooleeku ci xam te dañuy wax ne xam-xam moom heure boo ko amee wala nga koy sàkku maanaam li ci ëpp solo mooy xaw ma maanaam jërul mu cay bari donte nit ki mënta xam lépp waaye boo xasee ba toog ci pénc rek ni man la diw ba ñëpp ràññee la xam la kon lépp looy wax rek loolu war nga koo xam te war nga am foo ko teg te lii nga xam ni suñu borom dogal na ma toog fii di ko wax man maa koy wax waaye boo jëloon euh, sa micro maanaam def ko ci yoon wi yaakaar naa ñu ci bëree bëri fii ba bitim réew foo taxaw boo nee Serigne Khadim Fall alxuraan ñu ni la xam nañ ko bu dee ci wàllu seet ñu ni la amu ci morom bu dee ci wàllu ñaan ñu ni la amu ci morom te dara waralu ko lu dul lépp lu ñuy lekk ñun dafay fell te lépp lu ñuy wax nit ket duñu la ko wax ngiri fen waaye dañu la koy wax ngir suñu diggante yàlla ak yow ndax suñu borom mooy seede te képp koo xam ni lekk nga lu léwul ni ko yàlla waxee ci alquranil karim saytaane lay rëbb ba kere muy rees ndax yàlla moo ne a saytaanu yaxadikumul faxra wa yaamandukum bil faxsaayi walaaw yaxadikum maxfira asaytaanu yahdikum al faxra comme ni ko alxuraan dikkee rek maanaam alxuraan moom bàyyiwul dara lépp mi ngi ci téere suñ borom bi nee na képp kuy lekk riba tamit noonu la borom di dogalee maanaam saytaane di ko reesalee sa biir ba kerek riba boobu di jeex kon nag képp kuy ñaan maa ngi diggal képp kuy ñaan nga sàkku maanaam di lekk lu lew ba suñu borom dogal heure boo ñaanee jëmale suñu borom suñu borom dina la kàttan loolu nga ñaan incha allahu taala mu nangu. waaw mais am na loo xamante nag fekk naa ko fi. xam naa nag dinaa ci xuus ak yow tuuti mais ci kanam lay doon mais si nga xam ne ñi nga xam ne dañu nekk ci télé yi yor seeni lekket def ci ay pétaaw léeg-léeg nga jékki-jékki dégg benn biir yu am ci réew mi su ma neexee tudd tur parce que waaw parce que suñu liggéey la il faut que tam ñu tudd tur pour Sénégal ñi ñu seetaan nag mais tey ku ci mel ni tey comme Salva Ndong mi nga xamante ni euh, day jël ay pétaaw di toog ci télé yi naan Sénégal nii Sénégal naan réew mi nii nañu rey nag nañu rey ay xar wala yooyu mais pétaaw yooyu noonu nga xam ne moom lay seete est-ce que loolu maanaam doon na loo xamante ni maanaam nit war na ko mën a gësu daal ba ba ba. xam nga maanaam mooy lu ma la wax sànq sëriñ bi. dama ni la suñu borom dafay dogal ni maanaam man du ma tooñ kenn du ma tudd turu kenn ci tele naan moo def nangam man li may def laa xam waaye li nit di def moom man duma ko lijjanti ba koy toppatoo waaye dama ni daal képp koo xam ne yaa ngi seet ci pitaaw li yàlla wax rek laay wax ndax loolu laa jàng loolu laa xam te ku nekk li nga jàng nga sañ a wax tudd moom tudd kenn ku nekk yaa xam na ngay lijjantee sa bopp waaye dama ni seetu pettaaw képp ku koy def yàlla nee na ku jug dem ci kuy seet ci wàllum pettaaw ñeent fukki guddi di nga ko toog yoo xam ne duma la sàmm loolu yàllaa ko wax ñëpp xam nañ ko tudduma turu kenn nag ndax eh, jamono dafa eh, xaw a sensé te boole ci heure boo waxee rek maanaam kenn ku ne jug ni man ngay waxal wala dara waaye dama ni waxuma ak kenn dama ne képp koo xam ne jug nga dem ci koo xam ne ay pettaaw la yor yàllaa ko wax du sama am du samay wax damay jottali waaye tudduma turu kenn dama ni lépp loo xam ne ci wàllu seet gi ci gën a wér mooy listixaar. waaw loolu dëgg la man man sama jëm bopp man maa la posé question boobu pour nga tontu ma ci maanaam ki nga xamante ne lay toog di ko def comme maanaam sa wax na nga alxuraan. moom nga xamante ni képp kuy seet alxuraan mooy lépp alxuraan mooy li gën parce que Seydina Mohamed tamit ne dañoo jël pétaaw yi gëm leen nit ñi Sénégalais jël ay fitis di ko gëm leen nit ñi ay def leen leen lee tamit ci mum réew ah loolu maanaam naka nga ko jàngatee carrément daal donte nag xam naa ni maa la koy posé mais xam naa ni tamit doo ci mën a xos parce que nee nga tamit doo dugg loo xamante ni moo la mais juste rek ngir maanaam tey bu ñu la timalatee suñu micro maanaam sénégalais yi nga ne tey dañ seetaan tey ji pour nga gindi leen conseillé leen ci àdduna moo waral tey ma posé waat la question bi. waaw xam nga loolu ñoom seen xam-xam la maanaam ki gëm fétiche yooyu na dem ci fétiche yi ci gëm sëñ Xaadim Fall arxuraan ñëw ci arxuraan ji waaw loolu rek laa ciy tontu. Ah, sëñ bi sëñ bi daal yéen de sëñ daal mu ngi noonu waaw kay mais sëñ bi nag buñ jigéen ci wàllum noonu parce que wax nga ci wàllum set bi moo tey fekk naa fi kaamil yu bari nag ci biir néeg bi secret kaamil lan la. waaw xam nga boo xasee ba am tur woo xam ni. sëñ xaadim rek dafa doyoon sëkk te ku ne xam na ni sëriñ Touba moo moom alxuraan kon bu ma tuddee xaadim dem ba ñu may wax sëriñ xaadim Fall ba cay dàkkantal alxuraanil karim kon man jomb naa yu bari tamit jomb naa wax tamit yu baree baree bari moo tax ma ni la toujours bu may wax ci samay biiri wax dama naan seedee lu ma kenn li may wax ku ko gëm baax na ñëwal ma ñaanal la ku ko gëmul toogal woowu ma kenn pour nga ñëw ci man li fi nekk xam-xam la ku ko yittewoo soxla ko ñëwal ñu jàppale la ci ku ko soxlawul demal nga wuti ca leneen loo soxla wala leneen la nga gëm nga dem ca loola. waaye képp koo xam ne suñu borom dogal na subhaanahu wa taala dogal na nga ñëw sama kër incha allah taala aajo ju faju di nga ko am waaye képp koo xam ne tamit say aajo du fi faju mën nga see ba a ñëw. am na ko ne message si suuf na ma dugg yow ci li nga xam ne mooy wàllum jaaro ji jaaro bi secret bi dafa mel ni bi dafa am lu ko xam. te dafa am tamit ñu ko wut si si yow secret jaaro bi lan waaw xam nga jaaro bi dafa doon xaatimu Suleymaan jaaro bi man bi ma ci yor mi ngi nii ma takk nekkul ni nag nag euh, bii ma takk dimension bi ku ko bëgg noonu lay tollu waaye dafay doon loo xam ni maanaam incha allahu taala ku ko bëgg lii ne ci kaw ak li ne ci biir yëpp dinañ ko mën a liggéey defal la ko ci te dimension bi du toll nii. waaye jaaro bi dafa doon kaaraange goo xam ni dafa ànd ak ubbeeku ndax euh, xaatimu Souleymane moom ku nekk xam na doole ji Souleymane amoon xam képp xam nga ni ku ko takk moom maanaam bu dee wàllu wërsëg di ko doyal bu dee kaaraange suñ borom dina la ko jox ba mu doy incha allahu taala waaw ndax man moom lépp lu may wax incha allah moo ciy jiitu. mais mais mais mais ci wàllum jaaro boobu noonu. tey bi nga xamante ne maanaam dañoo bëgg tey sëñ bi sa ubbeeku tey bëgg a jëflante ak yow ci jaaro bi tey jii naka la ñuy def tey ba jàkkaarloo tey sëñ nga xamante ni maanaam mooy jëflante pour dimbali jàmm. waaw nga képp koo xam ni maanaam bëgg nga jëflante ak man sama numéro mi ngi ci seen bi sama ay numéro mi ngi ci seen bi képp koo xam ne suñu borom dogal nañ nga bëgg jëflante ak man incha allahu taala boo mu woowee ci kàttanu yàlla dinañ déggante foo mën a nekk ci bitim réew. foo mën a nekk ci senegal man Touba laa dëkk Touba laa féete fu Touba laa nekk yan saa yi ma ñëw dakaar ay yóbbante ma fi di ndax maa ngi fi nii waaye damay dellu leen di Touba incha allahu taala foofu mooy sama sees yan saa yi ma ñëw dakaar am fi benn ñetti fan ñeenti fan dellu sama kër Touba sama kër mi ngi tuubaa waaye képp koo xam ne suñu borom dogal na maanaam ñu jëflante ci wàllu jaaro bi at laa la may incha allahu taala di nga yor wërsëg woo xam ni dina la jaaxal te kenn kenn kenn du la mënal dara képp koo xam ne dangaa yor loo xam ne heure boo ko yoree xaalis mu yàqu sa loxo ñoo xam lu mu yor day tufaaroo seen ay loxo ñuy liggéey ni mbaam te mënuñoo dajale dara boo takkee jaaru bi sa loxo incha allahu taala lépp loo yor dina toog te maanaam boo ko takkee at ba at bi dellu si li nit ñi soxla tam yitteel leen muy kër suñ borom dina dogal di nga ko am moom goo moomal sa bopp incha allahu taala ab oto incha allahu taala suñ borom dina la ko jox ci ja jaaroo bi nag boo ko takkee laa la wax ndax lii may wax am na fu ma ko teg bu baax a baax ndax mi ngi nii sama loxo képp koo xam ne suñ borom dogal na nga am ko daal incha allahu taala euh, doo bokk ki nga xam ni nekku ci ay loxom man de xam naa ne dañoo fa jógee moom sëñ bi tey wàllum jaaro bi parce que jaaro bi moom ni mu njëkk a bindoo rek a jaaro tey ñu bari tey dañuy toog ci ay télé ne jaaro nii jaaro naa jaaro nii mais tey sët bi ban nga def ci jaaro bi ba nga xamante ne tey jii ku ko takk fekk ak sa wërsëg bi ubbi. waaw xam nga secret bi ci biir ba nga ne secret rek la nëbbu woon waaye li ci biir moom Serigne Touba nee na képp koo xam ne suñu borom dogal na mu ne sa yaram waxuma nga takkoo sa loxo rek mu ne sa yaram a ah, sa alal dina ko sàmm ba du yàqu dina sàmm sa ak njaboot. ba dara du leen mën a lor buñ doonee xale ba ni ñu doonee mag yow sa jëmm dina la aar ba kenn du la sàcc loo yor mu dajaloo waxe sëriñ Tuubaa la waaw basmala la moo ne ci biir lii nekk ci kaw muy xaatim bi Suleymaan la képp koo xam ne daal suñu borom dogal na nga am jaaro bi bu la neexee ma garanti la nga téye ko at li ma la ci wax bu ci amul incha allahu taala nga ñëw loo ma joxoon ma delloo la ko ba dollil la ci leneen bu neexee yàlla. macha allah loolu de mooy wax ji nga xamante ne mooy wax ju tënku wax jooju mooy wax joo xamante ni képp ku dégg xam ne lii muy wax ni moom am na fu mu ko rek mais man bi ngeen njëkk a sax damaa tiit parce que li tax ma tiit mooy dafa ba li ngeen njëkk a sax nga doon na ma lool waaw ndomba gi nañ ko waa Sénégal xam nañ ko àdduna du jar sax ma koy génne di ko wane waaye man nañ koo wane ndax àdduna moom dañuy ñaare dañuy bëgg maanaam lu nit di wax lu nekk rek nga am foo ko teg waaw ndomba gi ki mu ngi nii waaw du aw bu bees comme ni ma koy faral di waxee man du ma fekk ndomba gu ñu teg rek ma jël ko di ci wax wala dara ndomba bi incha allahu taala képp koo xam ne takk nga ko bu neexee yàlla maanaam doo dugg kaso doo dugg police doo accident ci oto loo yootu jot ci luñ la dikk incha allahu taala jox la ko par bari na ñu ni dikk buñ ci defee seen xel mu yàqu loo yor mu toog sa loxo bépp papier bu suñ borom dogaloon nga koy lijjanti boo ca doxee ay yitte suñ borom jàppandal ko incha allahu taala waaw ndomb bi daal mën naa cee bañ a sori ndax euh, doomu aadama yëpp xam nañ ko wax dëgg yàlla. ah waaw fii di fii di sëñ Xaadim man tey waaru naa tey ah mais sëñ Xaadim jàmm yàlla yi nga xamante ni maanaam seen seen maanaam seen doole taxut a yegg fi ta maanaam fi nga xamante ni maanaam fa seen fa la nga xamante seen kattan yeggu fa muy wàllum am-am te bu buñ bëggoon jëflante ak yow tey ngir bëggoon tey nga dimbali leen est que ñooñu du leen mën a dimbali. waaw xam nga man moom boo xoolee sëñ xaadim moom man xaalis yitteelu ma man li ma yitteel lenn la muy doomu aadama bi am soxla yaakaar ma ci ginnaaw yàlla ma fajal ko soxla jooju. moo ma ëppal solo li ma nit di jox ñaare fekk fa dara nekkul sax ma def fa dara moom laa gën a sawar fu dara nekk ma fay dolli dara waaw fekk ku yorul dara man ma def la millionnaire ci laa gën a sawar ku yori million man may dolli say million waaw. ndeysaan ku ko gis xam ne alxuraan rek a fees dënn bi gis ngeen ko nag numéro téléphone yaa ngi doon tamit ci écran bi mooy numéro téléphone tey képp koo xamante ne soxla nga ko si kattan suñu borom woo ko foofu que euh, defe naa ne adduna même bu dul dara sax da war a fagaru sa bopp yow miy jaay yow miy taxawaalu sax da war a jug sax sa bopp mais sëñ bi tey jii ni ma ko fekkee ku ko xool xam ne kii alxuraan dafa fees si moom mais sëñ bi euh, comme maanaam temps bi parce que lañ mu jeex te lépp tamit xañul tamit ci cim bi tey jii ban message ngay lancé lu ci mel ni président Sénégal muy Macky sàll ak wàllum réew. déedéet xam nga yooyu man duma ci wax. man moom. fi mais mais ñaanal ñu rek ñaanal ko moom it. waaw yàlla na suñu boroom def ci réew mi jàmm. du ñaanal président man réew mi laay ñaanal ñëpp jullit yëpp am jàmm ak ñi fi nekk nekkuñu jullit yàlla na ñëpp am jàmm ndax damay faral di wax baat bu Serigne Saliou Mbacke waxoon rek mooy man moom lépp lu dul diine aw ma defar aw ma ci yàq. fi nii bin may wax senegal équipe bi day football ñenn ñi di ma woo suñ bi ñaanal dama ne yàlla na yàlla na yàlla am jàmm rek. lam lan ca soxla yàlla nañ ko am rek waaye du ma ñaan ci football du wax ci football du ma wax ci ñaan ci làmb duma wax ci làmb du wax ci politique ñoruma xam nga lu ma ñor man doomu aadama bi sonn sonn yaakaar ma ñëw pour ma faj aajom kooku laay am yitte mais laneen lu dul loolu bu dul diine ñoruma bu dul lislaam ñoruma lu dul alxuraanil karim ñoruma gawuma ku dul Serigne Touba yaakaaruma lu dul kilifa yu mag yi waaw la may dolli pour ñu tëj émission bi rek wax ji gën a gàtt mooy di nuyu ñëpp rek soppe yeeg waa daayira yeeg ñëpp rek waa tuuba waa Ndakaaru waa Paris ci Angleterre ñëpp rek képp koo xam ni yaa ngi sopp Serigne Khadim Fall émission bu mu def nga bég ci kontaan ci maa ngi lay ñaanal jàmm ci yow ku lim juum sant naa ñëpp képp koo xam ne tamit heure bu sëriñ Xaarim Fall defee émission nga mer tamit maa ngi lay ñaanal nga am jàmm tamit ndax li ñuy def moom siiwal suñu xam-xam rek te nit ñi jariñu ci moo tax ñu koy def waaye jubluwuñu ci lenn ndax sëriñ Tuubaa teral nañu mënoon nañoo nes suñu ruq di jëfandikoo li ñu yor ba mu jeex te du di jëfandiku di jaamu yàlla te du jeex sëriñ Tuubaa teral nañu kon bu ñuy génn di fiiwal suñu xam-xam ngir maanaam nit ñi jariñu ci looloo ko waral waaye képp koo xam ne war ngaa jariñu te nara jariñu te mu doon njariñ ci yow wax jéegi yépp yàlla bu mu dooni wax dara kese yàlla wax ji yàlla na dooni jëf te képp ku am yaakaar ci ñun yàlla bu yaakaar boobu tas waaw barkeb Sëriñ Tuuba waaw. macha allah ca kam daanelee rek euh, ndeysaan képp ku dégg baatam rek sa xol day sedd muy Sëriñ Tuuba euh, sëñ bi xam naa ni dañ tëj émission bi rek moo tey jii sëñ Xaadim tey jii ñi nga xamante ne tey jii dañoo nekk Europe. bëgg a jëflante ak sëñ xaadim sëñ xaadim ba numéro téléphone la ñuy joxe boo xamante ne ku nekk Europe tey ji bëgg jëflante ak sëñ xaadim waaw man numéro yi moom euh, siiw na ñoom xam nañ ko

di nit ñi def di wut ay fekkartee rek du ma ko def mën naa koo def waaye àdduna jërulu ma rëy ba may wut ay fekkarte rek wala ñu may woo sama téléphone di sonné ma koy bañ a jël képp ku am ay yitte sa yitte jooju moo mu gën a ñor sama yitte bopp ndax ginnaaw yàlla yaakaar nga yàlla am ay waajur yaakaar leen waaye dangaa jël dagg sa yitte di ma woo képp ku ma woo dinaa la jël képp ku ma woo jotoo maat bàyyil ma message ci whatsapp bi heure bu ma amee tuuti temps sama loxo bu fendee incha allahu taala dinaa la tontu incha allahu rabbi. baax na sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal. waaw baax na wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf. ci barkeb sayxi faddilu buur yàlla dolli noo ay maqaama yàlla woo bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu buur yàlla dolli noo ay maqaam yàllaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi buru yàlla doon dino ay maqaam yàllaw Bienvenue